sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi al ghurril mayamin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu giñ ciy def ñoo ngi nuyu itam di ziare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala may ko fan wu gudd ak wér ak kàttan ba mu yeggale mboolem naalam yi dañ ànd koog moom mbokki jullit yi tey dañoo dikk ngir fàttalente ci loo xam ne borom bi tabaraka wa taala ji ñu ne ko ci alquran ay yoon yoon ndax sunu borom tabaraka wa taala mel na ne dañoo bëgg a noppal bim ñu xamalee lu tax mu binduñu ndax doomu aadama gëlamoon na xamutoon lu tax mu nekk ci kaw suuf waaye borom bi noppal ko ci laaj yooyee mu daa laaj boppam lu ko indi ci kaw suuf mu xamal nañu binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaam ma wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun loola nag taxañal na doomu aadama ay laaj yu baree bari yoo xamante ni daana ko sonal kon léegi doomu aadama buñ ko laajoon looy liggéeyee ci kaw suuf mën naa tontu te tontu la wér te mooy li ma fii liggéeyee mooy jaamu yàlla sunu boroom nag ne loolu ma leen wax de moo tax ma bind nit ak jinné te mooy weesuwul ngir ñu jaamu mu teg ca ne ndax man yàlla mii leen bindkat soxlawuma ci yéen wërsëg woo xamante ni moo tax ma bind leen ngir ngeen ma andil ma ko maa uridu minhum min rizq mu tegaat ci itam ne soxlawuma ab dund boo xamante ni dama leen a andi ci kaw suuf yéen nit ak jinne ngir ngeen ma koy mën a andil muy aw ñam wa maa uridu an yut'imun ndax ñaar yooyu yëpp man mi yàlla te bind leen lottuma ci inna allaha huwa razaqu dul quwati al matin ginnaaw na xam nañ li tax sunu borom wàcce ñi ci kaw suuf te mooy jaamuñu loola moo war a nekk sunu waar wañ war di xëy di ca gont di sunu tool waaye mu am ku nekk ca wet gi nag wet gi nag nekk mbindeefam yàlla nekk doomu nekk noonu doomu aadama itam te kooku mooy seytaane ndax lu la waaye man di wax itam ku saa su nit joxañee moroomam doomu aadamaam ne mooy samab noon benn noon daal mooy bi nga xamante ni sunu borom joxañ na ko wëlbati ku wax doomu aadama itam ne ko kee mooy sab noon te kooku mooy seytaane te yëmu ca sax daf koo xamal ne ko noon la boo xamante ni nëbbut ak noonoom adu mu biin la ko tuddee mooy noon bu bir bu biral ak noonoom boo xamante ni nëbbu ca dara làqutu ca dara inna seytaana la aduw yéen doomu aadama xam leen ne kii seenam noon dëgg dëgg dëgg mooy seytaane te ki nga xam ne nag mooy sam noon nag waroo ko jàppe xarit danga ko war a jàppe am noon fattaxiduhu aduwa ginnaaw seen am noon la nag na ko jàppe am noon ndax bëggalu leen lu baax ndax su doomu aadama xëyee ne dama bëgg a jëf-jëf ju baax moom day xëy ne doo ko fi jëfe moom seytaane wala soo ko fi jëfe itam du baax te sunu borom itam leeral nañu ne lam xante woo mooy moom seytaane mooy lum man lum man ci gurgur ci doomu aadama yi mbooloo ma lum gën a bari mu jiital leen tàbbal leen seen sa sawara ëllëg wala yaasu billaahi loola mooy ab yam ca lay xëy di ca gont innama yad'u xizbahu li yakunu min ashaabi sa'ir moo tax sëriñ bi nag radiyallahu anhu moom mi nga xam ne jàmm rek lañu yéene waxtu wu nekk muy mu ñuy xamal noon boobu di sàkku ci ñun ñu koy moytandiku muy seytaane amma rajimu fa naudu birrahim minhu wa min kulli muxaalifin mulim nee na seytaane moom nga xam dañ koo dàq ci yërmande yàlla ñoo ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci musal ñu ci képp koo xam ne itam dafa jaar yoonam wax te mooy kuy xëtt ndigal te du topp ay ndigal waxtu wu nekk ma nga ci ay tere yàlla nañ ci musal ndax sëriñ bi mu ne seytaane moomu kat ku doy waar la ndax waxtu wu nekk dafay yëkkati ngànnaayam di xeex waxtu wu nekk li annahu muxaaribun fi kulli xiin waxtu nekk cib xare la nekk ku muy xareel doomu aadama xare ba de ma ngi ko tàmbale woon ba doomu aadama wàcce gut ci kaw suuf dafa seeni wuta dakkal xare boobee lu dul ne bis penc dafa taxaw an dirni ilaa yawm yubaasuuna la waxante woon ak borom bi bàyyi ma fi ba bis taxaw boo boobaa danaa def doomu aadama nangam danaa ko wax nangam danaa ko jàddloo yoon kon day xare te tegut ngàndaayam li annahu muxaaribun fi kulli xiin wala yusaalixu wala huwa yalin sëriñ bi nee na seytaane moom mu kat du wut kuy defar digganteem ak doomu aadama ndax bëggut mu jag du wut kuy defar digganteem ak doomu aadama ndax dafa bëgg diggante bi du neex loolu ci liggéeyam la wala huwa yalin te du nooy te nee na doomu aadama su xeexeek seytaane moomu ba bëreeg moom ba daane ko nee na danaan foj jët jóg taxaw moom seytaane ak jëllam boobee lépp lay ànd ak ne foj jët jóg ci lu gaaw ba noppi gàddu gàdduwaat ngànnaayam wut siwaat doomu adama wa kullu ma sayyartahu sarian qaama ilayka bil ada sarian mu teg ca nag loo xamante ni lu doy waar la ndaxte nee na seytaane moomu moom itam buñ ko doon laaj luy sa liggéey ak luy sa yitte nee na weesuwut la muy tontu su waxee dëgg mooy xeex ak doomu aadama ba jàddloo ko yoon mooy sama liggéey wala lahu suxlun siwal muxaaraba li kulli aabidin bila mujanaba nee na doomu aadama bu nar a jag bëgg a jagal kooka la seytaane am soxla ci moom ndax kooka la bëgg mu jàdd waaye doomu aadama ba dëng sax nag moom yaa nga ca liggéeyab seytaane daanaka du yàq waxtoom ci yow xanaa xiirtal la ca sa ndëng googee ngir nga wéy ko yitteel dëgg dëgg dëgg mooy ka bëgg a baax te bëgg a baaxal kooka daal du jubóog seytaane li kulli aabidin bila mu jaanaba te amul lenn lum cay moytandiku ku noonu nag di noon bu noon bu bir doomu aadama rawatina ab jullit war na koy fuglu nag ni nga xam ne ni la ko seytaane di fugloo ngir bëgg ngir bëgg muy jàdd noonu la ko war a fugloo moom doomu aadama itam rawatina jullit bi ngir bañ mu xëcc ko jëme ko ci lu koy jàddloo ci yoon kon bunt yooyu nga xam ne ci la seytaane di jaar ba mën a yàqal doomu aadama ci la waxtaan wi jëm insha allahu taala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 على السلام أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw nag seytaane moomu laanahullahu amul yitte judul yàqal doomu aadama rawatina ka bëgg a jaamu yàlla ci doomu aadama yi ndax nañ fàttaliku ne ginnaaw jaamu yàlla moo indi doomu aadama ci kaw suuf te kii lu ko yàq lay bëgg kan koy jóg ngir jaamu yàlla la seytaane njëkk a jublu ci moom sëriñ bi nag wax nañu seytaane bu jógee ngir yàqal doomu aadama bi bëgg a jaamu yàlla nu mu koy yàqale bokk na ci mu ne lam koy njëkk a digal mooy mu bàyyi jaamu yàlla bu dee julli la seytaane njëkk a woo mooy mu bañ a jaamu yàlla mu bañ a julli su doomu aadama bi xamee loolu rawatina jullit bi ba jóg taxawal julli ginnaaw ba matale sart yaag yëpp jóg ne damay julli seytaane du naagu naan ko nag yittey àdduna yi mi ngi lay nekk kon gaawal julli te jóge fi su gaawantoo julli ga rek seytaane am lam bëggoon waaye su ko teyloo nag su ko teyloo rëcc na ci seytaane ca taxawaay boobee waaye seytaane naa googut lam cey tegal teg mooy ne ko ah ginnaaw julli nga ba noppi de te yaa ngi nii teyloo ko nii de sa julli gi de soo ko defoon ci kanam nit ñi buñ ko gisee da nga am wàcc-wàcc ci seen kanam su ko loolu jeñee doomu aadama ji wala jullit bi bam njistal ci julli ga julli ga daal di yàqu ba tey seytaane am dam su xamee loolu nag nëbbu jaamu yàlla googee mu doon jaamu def ko ngir jëm yàlla rek sellal ko ba tey du naagu ma ngi koy nekk ca ñeenteelu pakk ba danaan ko ginnaaw def nga jaamu gi te yàlla doo nga tax nga koy def jàmbaar nga waaye day li nga defal yàlla rëy na bu ko defee su nawee jëf ja rek jëf ja daal di yàqu mu ne nag kon na ngay bàyyi xel doo euh, doomu aadama yi rawatina jullit bi na ngay bàyyi xel seytaane ci ñeenti barab yooyu <coughs> su lay tere ak jaamu yàlla na ko def soo bëggee nga yàkkamti ko na ko teylu su bëggee nga njistal ca nang ko sellal te def ko ngir jëm yàlla su bëggee nga naw ko bu ko naw te xam ne di la waroon sa digganteeg sa borom defagoo ca dara moo tax mu ne woon na koy fuglu waxtu wu nekk ak jamono ju nekk <coughs> ci xeexak moom ak di jañanteeg moom boo ko defee def na la fegal ay coona faraqibanhu kulla waqtin wa zaman bil xarbi wa difaaci kay tukfal mihan bokk na ci bunt yi nga xam ne nag seytaane dana ca jaare doomu aadama ngir bëgg koo yàqal mer mer ca la bokk mer ci jumtukaayam la seytaane su fekkee fexe na ba jullit bi nekk ab meraakon lu jóg mu mer na ko wóor ne muccagul ci seytaane ndax doomu aadama su meree rek seytaane jekku na ko ba mën naa am ci moom lu baree bari lu mu bëggoon moom seytaane te la mu ko bëggal du jàmm moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi xamoon loolu ba mu amee ku ñëw ci ni moom nekkoo ko dénk ma dana ko na nga bàyyi mer bàyyil mer mu mel ne waaja dafa xeeb baat bi mu ko wax mu ne ko tey nga maa dénk yonent bi sax ca benn baat ba bàyyil mer bàyyil mer ngir xam mer lim mën a yóbbe doomu aadama kon mer ci jumtukaay yi nga xamante ni seytaane da koy jëfandikoo ca la bokk moo ne mer moomu de ni muy nekk jikko joo xam ne ju ñu war a xeex la nekk wopp am na ñoo xam ne dañ koy puukare woo man damaa bari aw tàngoor ak dama bari mer ak damaa bari xët-xët ak suma meree kenn duma mën a téye te moone ne day kuy puukare loolu yaa ngay puukare woo wopp joo war a faji ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na lu mel noonu ak kum am jikko yu mel noonu am nga jikkoy seytaane amma xamiyatun wa kasratul gadab wa xiddatun wa diqu sadrin bittaab fa hiya min axlaaqi seytaanin layin aadana almuinu minhu kulla xiin bari aw tàngoor lu ñu wax nga mer bari mer xat dënn nee na jikkoy seytaane la kon kum nekk ci yow da tàggatu ngir mer moomu jóge ci yow nit daal ni muy tàggatoo ba nekk am meraakon du jóg mu mer mën naa tàggatoo tàggate boppam noonu ba nekk ku lewet waaye jikko jikko boroom la nga cay daj ba jikko woo nga cay dajaat ba jëlewaat ko ci sa bopp kon mer ak topp bànneex bokk na ci jumtukaay yi seytaane di jaar ba mën a not doomu aadama ñaareel ba bokk na ci jumtukaay yi seytaane di jëfandikoo mooy añaan ak xër añaan ak mooy sunu boroom jox xéewal sa mbokk nga bëgg xéewal googa deñ baaxut naka noonu xër xër nag ni dina ko def ci lu baax sax ba mu yàqu waaye def na ko def itam ci lu bon moo gën a bon xër ci lu bon moo gën a bon waaye xër ci lu baax itam léeg-léeg sax mu ëpp ba yàqal doomu aadama ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon xir dafay gumbaloo nit di ko tëxloo xubbuka li say yomi wa yusimmu nit ki mën naa bëgg dara ba sori ca ba loola gumbaloo ko ba du gis sikki loola wala itam mu taxloo ko ba du dégg sikki loola te am nay sikk kon xër itam rawatina ci lo bon ci jumtukaayu seytaane la bokk bokk na ci bunt yooyu nga xamante ni itam seytaane dina fa jaare mooy baril ak lekk baril ak lekk buñ dee wax baril ak lekk nag waxuñ ngay lekk lu ëpp ci loo xam ne ne lewut loolu dañ koo jëlale waaye lekk ba sa biir fees ci lu leew sax tax ñuy wax loolu jumtukaay la boo xam ne seytaane dana ca jaare doomu aadama rawatina jullit ngir yàqal ko ndax lekk ba suur ci lu lew sax day jox kàttan bànneex ya te bànneex su baree mooy jumtukaay ak naay yi seytaane di jëfandikoo moo tax nit ñu baax ñi dañ daan wax ne lekk bu bari de rawatina lekk lu lew sax lay wax ñoom am na juróom benn jikko yoo xam ne mën na koo jur ba ci njëkk mooy mën naa dindi ak ragal yàlla ci xol bu ñaareel ba mën naa tax yërmaande yitam wàññeeku ci xolab ki bëgg lekk ndax bu baril ak bu bareele ak lekk day dem ba yaakaar ne ni muy regge ni leen nit ñëpp di regge te déedéet demewul noonu am na ñoo xam ne buñ añee duñ am lu ñu rek waaye moom ginaaw dafa dëkke ak regg rek rawatina sax ci lu lew ndax lu lewut waxuñ ko bu boobaa day yaakaar ne ñëpp fa mu yegg lañ yegg boobaa yërmaane mën naa jóge ci xolam ba dootu yërëm ku néew doole ñetteel ba itam regg dana tax say cër diis ba doo mën a jaamu yàlla dana tax itam soo déggee wax ju baax doo ko mën a dékku dékku dana wala itam sooy wax lu baax sax nit ñi duñ duñ ko mën a dugg du mën a dugg ci seeni xol regg itam dana yëngal ay wopp ba dolli nit ki ay wopp yoo xam ne nii dalu ko woon kon regg nag bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne seytaane dina ko jëfandikoo ngir yàqal doomu aadama ak ban seytaane dana xiir doomu aadama ci bëgg poñ-poñ itam àdduna ak alali àdduna xante woo di defar ay kër di ko taaral waxtu nekk yaa ngay peintre ak jekk-jekkal aayut de waaye ëppal ca moo baaxul ak mu jiital la ba nga xam ne dafa mel ne moo la indi àdduna ndax loolu lépp boo ko toppee danga nit ki dana dem ba sori ci ba nga xam ne dee mën na ko caa fekk te fekk ma ci yoonu seytaane ak topp bànneex te loolu amul njëriñ bokk na ci bunt yi nga xam ne seytaane itam dana ko jëfandikoo mooy xemmeem ci li nekk ci loxo yi nit ñi ndax loolu day tax njistal man caa dugg ak ka yoro la ngay xemmem nga jàppe ko sa buur boo xamante ni mën naa dem ba sax nga koy jaamu ba lay digal aka tere te loolu waru leen foon a yegg bokk na ci bunt yi seytaane yi gën a jëfandikoo ci tënk itam mooy yàkkamti yàkkamti sax dëgg la lu yàlla binde doomu aadama la ndax nee na wa xuliqal insaanu ajula nit dafa yàkkamti waaye yàkkamti gi nga xamante ni baaxul nag moo yàkkamti gi nga xam ne daf lay yóbbe ci ak jaamu yàlla sax nga koy fërëx-fërëxee ba doo ko defe ca anam gam ware moo tax sëriñ tuba radiyallaahu anhu waxoon ne soo gisee ne yàlla daf laa nattoo nga yàkkamti looy def doo ko teylu baye boo nga dékk say loxo yàlla ñaan ko ngir mu dindil la ko ndax nee na yàkkamti googu mën na laa yóbbu ci xañ la ay tuyaaba aku réccu ak mooy yàlla amma isabtuliita bistijaali fa dran bi dafihi li di jalaali li annahu yuqiu fi xirmaani wa saamin wa nadamin isyaani ba tey sax bunt yi nga xamante ni seytaane dana ci dugge doomu aadama ba yàqal ko mooy nay nay ak ragal ñàkk soo naree joxe sa alal ci yoonu yàlla mu na le boo ko joxee looy dese nga bankaat say loxo seytaane booba am na lam bëggoon te loolu bu la nay jàppee ba nangoo joxe ci yoonu yàlla mooy tax ngay denc alal di ko dencal ëllëg te doo ko dépensé ci yoonu yàlla bu ko defee tëkk ba ëllëg di la nekk ci allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah kon li ñuy tëjee waxtaan wi mooy seytaane moomu buñ ci bëggee mucc nu ñuy def xanaa dellu si ci li sëriñ bi waxoon fa daafianhu in ataa mu waswisa bi dikri rabbina takun muqaddasa su dikkee di la jax-jaxal nanga ngay tudd fàttaliku delluwaat sa borom tudd ko tey musul ci yàlla mu musal la ca ndax nee na ab xaj la boo xamante ni sunu borom ab dawkat la bu sunu borom xiirtal ci yow la la ca mën a musal mooy nga delluwaat ci sunu borom waaye su fekkee jóg nga ngir xeex ak moom rek te boole woo ci sa borom nee na seytaane daf lay gañe ndax nee na mën nga koo xeeb bam cor la su ngeen desee yéen ñaar rek nee na woon nag buñ am kóolute mukk ci pexe seytaane njëkk sunu ruux di teqale kooku sunu yaram kon yàlla nañ yàlla musal ci seytaane wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي اختار نبينا سيدنا محمدا واصطفاه وبالرؤية خصه وبالشفاعة أرضاه وللمقام المحمود ارتضاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام wa asxaabihi al-aclaam amma bacdu fa yaa ayyuha nnaas istacidduu wa maa mislu al-camali as-saalixi min isticdaad wa tazawwaduu wa maa mislu at-taqwaa wa taacati llaahi zaad وحاسبوا أنفسنا لا شك في كونها محاسبة وراقبوا أعمالا هي بلحظ الأجفان مراقبة وتوبوا إلى ربكم وارجعوا واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وتأهبوا فلا بد من نقلة الممات والوقوف من القيامة في عرصات واعلموا أن الصلاة على نبينا المصطفى الكريم من مفتاح أبواب الرحمات وأن الاهتصام بجنابه العظيم huwa almuusilu ila ahla almaratibi wa asrafi darajaat allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaata abdin yaxsha uqubata mawlaa yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an الحمد لله الذي أسرف أسرف في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ومصطفاه أجل شفيعا في المذنبين أما بعدها يا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال wa maa xalaqtu aljinna wal insa illaa liyacbuduun wa qaal wattaquu yowman turjacuuna fihi ila allah summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun walaa yusxilannakum attakaasuru fi lamwaali wal awlaad fa inna yowma alqiyaamati yowmun laa yanfacu maalun wala banuun laa yanfau fiihi maalun wala banuun wastaxyu min allahi an yuqallibakum fi nicamihi bukratan wa asila wa antum ala macsiyatihi wa muxaalafatihi muctakifuun wa maca kawnihi laa yaczubu canhu misqaalu darra faqad xadda lana xuduuda wa jacala calayna xafadatan wa suhuuda wa qaal wa inna calaykum la xaafidin kiraaman kaatibin yaclamuuna maa tafcaluun cibaadallah tafakkaruu yowman yuxaasabu fiihi alcibaadu cala alnaqiiri walxitmiir min kulli danbin sagiirin aw kabiir اللهم ارزقنا توبة نصوحا وعملنا بلطفك الخفي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا كل ويل وتجلب بها إلينا كل نيل وتحجبنا بها عن القوم المفسدين وتوجه إلينا yaa nasral qawmi saalihiin amiin yaxfirullahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الله أكبر الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 allahu akbar sami allah liman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 أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allah asalaamaaleykum.